salaamaaleykum wa rahmatullah yéen mbokk yi safoo seen seen bii di Happiness TV ñi ngi leen di nuyu di leen ziyaar di leen jaay jëfal di leen wax ne nag continuer leen di ñu suivre fii ci Happiness TV surtout di commentaire di aimer na ngeen koy partager ndax njëriñ rek la ñu àndandoo ñun ñëpp liggéeyal li nga xam ne moom mooy diine lislaam